tax na itam ku ci nekk xam boppam bon métier bi donte jàng nañu école ñëw def stage ci moom bay liggéey ci moom euh, lépp ci yoon la ko la ko teg euh, te lépp lu mu doon def itam éthique ak déontologie la ci doon jiital mu di professionnalisme dans le vrai sens du terme ci la àndoon ak ñun ba tax tey du kenn ci ñun ku mës a jaar Walfadjri koo nga xamante ni rëccu nga la nga doon nekkee ci ay loxoom wax ji nag mënta bari mais ñun dañu naan euh, jërëjëf Sidi Lamine jërëjëf Sidi Lamine merci fi mu jëm nako nako nako gënal fi mu joggé donte fi mu joggé liggéey na fi lutax ñun mën nañu am jottu gu rafet. qui nous frappe en tant que sénégalais parce que c'est un grand patriote qui est parti euh, qui avait le courage de ses idées et ce que nous voulons pour le Sénégal. C'est une grande perte pour, pour nous tous. Euh, je voudrais ici saluer sa mémoire et aussi prier le bon Dieu qu'il l'accueille dans son paradis. bëccëg la bu bu kenn dootul fàttati ci Sénégal bëccëg la boo xam ne kenn ci doomu Sénégal yi tudd Sidi Lamine yi nga xam ne def na li ko war ci dundam. ñu gis ne itam ci li nga xam ne moom moo di wàllu dinam euh, wàllu diine euh, daal dina ci euh, bay waaram bu baax a baax. kenn dootu ko fàtte. ba gannaaw ba ko gannaaw ba ko maam Khalifa Niass juree. borom xam-xam bu kenn berantewul. yaayam soxna Aminatu Chérif Al Alawiya jur ko yooyu yëpp mën na wax ne mbaax gi dama koo doon na kon ñu ne kon bu baaxee itam du ndamam. waye nak mu taxaw tem fexé ba jëriñ bopam jëriñ moromam jëriñ réew mi ci lam ko doon défé sukkandiku ci xam-xam ak ci xel ak ci jikko yu rafet yalla ñu ko yalla fayal bi jaaxe bil mustafa l'un des combats essentiels de Sidi Lamine c'était justement que les arabisans sont non seulement soient non seulement reconnus mais qu'on les intègre dans la prise de décision et c'était un de ces combats. Et, quand je suis arrivée, nous avons commencé à travailler autour de ces questions, mais surtout les droits des femmes. Parce que les arabisans avaient l'habitude de penser que les femmes ne pouvaient pas être les égales des hommes. Et c'était les combats des années 80, 90. Et nous avons eu à travailler ensemble lorsqu'il a créé son journal, sa radio, sa télévision. Et Dine et Diamona, je faisais partie des animateurs ou animatrices en tout cas qui venaient régulièrement à Dine et Diabona. Et finalement, nous, nous avons euh, eu une amitié fondée sur l'intellect autour des questions de l'islam et sur la guerre, par exemple, Iran-Irak. Nous avions des points de vue divergents et d'autres questions, la vision qu'il avait de Badr, etc. Euh, un homme de conviction lumu mu gëmul du ca dugg non la ko yàlla binde euh mu doon lo xamni isu tay bi résultat bi mu ci am te modi fa tabarakallah doomu dara la dara la mës di wax mom la mës di protégé la preuve en est que sëñ Cheikh Tidiane si lumu mu bind da fay wax ni nañ ko yóbbu ci journalu dara ji wal fajr Budé dee lu muy def déclaration mu ni nañ dem ci télé daara ji donc euh, Sidi remplir na condition yëpp waaw li ko ko may nag mooy fitam ak taxawaayam euh, nga dikkaat un tout petit peu ci li nga xam ne moom moo di taxawaayam ci lépp lu soxal wàllu diine fii ci réew bu Sénégal mais parce que loolu héritage am la ci la judd ci la màgg tabaarakallahu moom la nàmp ndax euh, maamam الحاج عبد الله نياس آه، بكون كي خلفاء السيد الشيخ احمد تيجاني رضي الله تعالى عنه موم موك شيخ الحاج مالك اك الحاج عبد كان ньо بكون ميسيون ньоم نيب سين جابوت سي دين لين دين يار تبارك الله ا آه، سيدي موم داماي فارال دي واخ رك ني موم ليكو غنا تاخاو موي ليغا خامني موم لا ديفون ا آه، ا شيفال دي باتايام واو

mais ñi mu ko bàyyeel lan la ñuy def. voilà.